tey bés bu màgg la eh, am na sëriñ Cheikh am na 40 jours yal na yàlla lokk yokk leeram ah comme sëriñ bi nu mu ko waxee rek ku gëm na ni Serigne Cheikh dafa làkku rek waaye mu ngi sunu biir te gëm nañ loolu tax ndax tey eh, àdduna bi nekk Tiwaawoon yépp ah bëri na lool lool lool lool nit ñi bëri nañ torop ñoom ñëpp ñu ñëw rendre ko un hommage ah mu nekkoon lu tooy xol yi waaye ah àdduna moom nii rek la moom tàggatoo na yàgg na ñun rek ñoo fi ñoo fi desoon ah kon nag nañu gën a jàngat ay discours am ndax bàyyi na fi lu bare bari loo xam ne ni ça peut servir tey. mais dina servir aussi ëllëg kon lépp lu fi bàyyi comme jàngat nañ ko nañ ko jëfe ah, te xoolaat bu baax yi mu doon wax yëpp parce que lii lii moom waxoon na ko yàgg na kon nag et puis quarantième jour bi ñu ko def dans la sobriété te loolu am na solo ndax noonu la ko bëggee woon ah kon nag yal nañu yàlla taas ci leer ko xam Serigne Moustapha xam ne euh, lii rek la mën a wax ndax moom mooy Serigne Moustapha wal mus al moustachidati wal moustachidati euh, ba pare Serigne Moustapha euh, dafa resté constant ci li mu nekk foog naa Serigne Moustapha depuis jamonoy Abdou Diouf ba tey ji ah ñëpp xam nañ ne liñ ba mu jëloon moom la jël ba léegi waaye mu jàpp xalifa Sall ah mu am histoire bi mu ci raconté te loolu lu am solo la ñëpp war koo jàpp histoire boobu li ko lié ak Khalifa Sall lu am solo la euh, ci euh, ñëpp nit ñi war ko jàpp leneen li mooy nee na leneen li mooy mooy turandoo Serigne Babacar ah te Serigne Babacar nag kenn la ci woon ci ñun ñëpp taalibe yeeg ñeneen ak ñeneen surtout moom Serigne Moustapha nga xam ne ni euh, Serigne Cheikh Tidiane si almaxtum mooy waajuram kon nag euh, même ay ay ay rakkam yu jigéen soxna kinne sax wax na ni nañu bàyyi baayam muy Serigne Babacar muy xalifa sàll kon nag tey xol yi tooyoon nañu ñoom waxee nañ wax nañ ah ñu yaakaar ne li mu wax Ah, njiiti réew mi dina ko dina ci am jàngat yu bari parce que wax na fa lu baree bari wax na fa xalifa Sall waaye wax na xali euh, relation njiiti réew yi fi yi fi mus a jaar ak ñi leen wër. ak ñu leen di faral di wax nga xam ne méngoowul ak li xew ci biti yooyu yëpp jàpp naa ne président dina ko dina dina ci am jàngat bu am solo waaye nag li mu wax daal ne ba tudd Serigne Babacar ne ah bu ko bu ko génneewul it Serigne Babacar dana ko fa génne loolu lu am solo la te loolu gëm nañ ne ah bu ko génnewul Serigne Babacar dana ko génne ndax dañ ko dugal injustement ndax moom c'est c'est un c'est un leader politique boo xam ne ni ah Macky da koo ragal da koo ragal waaye ragal yàlla moo gën ragal nit Khalifa moom li mu war a am dina ko am ah 2019 dina nekk président de la république incha allah.